assalamualaikum alaykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di baal ñëpp ak di leen baal ak vidéo bi nag dara warulu ko lu dul di jégalu samay fans

yore wuñ ma ko xame wuñ ma ko yàlla mu mën a xiir ci musique sama yaay teel a àdduna sama papa ma def la am ci doom yaakaaroon ku dul man ma am soxna am ay doom am njaboot lépp lu nga xam ni samay fans bëgg nañ ko wala musique laaj nañ ko dox naa ci moom jeex tàkk waaye nag bu ñu fàtte ni yàlla nee na inna lazina kafaru min ahli kitaabi musikiina fi naari jahannam xaalidiina fiha ulaayka hum sharrul baariya duñu bàyyi ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla te bokk ci ñi am téere te ñuy bokkaale dinañ dugg safar dinañ fa sax mu dellu ni ne lazina amanu wa milu saalihaati ulaayka hum xayrul baariyat ñi nga xam ne dañoo gëm te def def lu baax dinañ dugg àjjana te ñoom ñoo gën ci mel nii ñu yax lu waaye def lu mu tuuti tuuti loolu lañ lay fay waaye def tamit ci lu bon mu tuuti tuuti tuuti lañ lay fay def musique parce que dama ko bëgg may mettital ma yàq ma teg lu ma àttanul mettit bu nekk lu nekk mën naa ko ci musique waaye gëm yàlla rek bëgg bëggal samay fans yàq suma der bi mu bokk ci famille bu baax am doom ay doom am njaboot yor soxna ngeen xamul lu nekk showbiz bi mënumaa wax day génn sax mu mën a xool nit ñi di loo xam doo xam doo jégalu ñëpp jégalu samay fan tekki naa samay ndomb ci musique quitté naa musique bi di ñaan yàlla mu woyof la ma yomb may jël te teg ci yoonu sirata mustaqim te ko ñaanal sama naataango yëpp ni ñaanal bépp artiste yàlla bu ñu dund li ma dund yàlla bu ñu ko xam te kooku mës a xam yàlla na ci yàlla génne yàlla na ko yàlla tekki may gërëm ñëpp di sant ñëpp di baaluwaat samay ak di sama fans yëpp démissionner démissionnaire,